Sine Abo Bousso mi nga xam ne nii yàlla dogal na mooy suñ kilifa ci relation extérieure ak Sine Modou Seck ak Sine Moustapha mi nga xam ne nii yàlla dogal na euh, teewu fi ñi ñu koy nuyu bu baax te di leen siyaare te di rafetlu xalaat benn xalaat pour mën a daje euh, les seen ak njaboot gi nga xam ne nii yàlla da leen a boole ñu war a seq ab liggéey. te liggéey bi doon liggéeyam Serigne Touba boo xam ne nii du fi mus di daj dafiy sax faw te yàlla dogal na jëwrinam ju ma mas a ñëw fii rek li tàmbalee ci Sëñ Modou Moustapha ba ci Sëñ Mountakha mi nga xam ne nii yàlla dogal na moo toog jataayu Serigne Touba yàlla fi yàgg te te xamal ne eh, Touba ca kanam Euh, dafa doon mbir mu am solo moo xam ne nii dafa doon solo baa boo xam ne nii euh, dafa ñëw rek ñëw ci jamono Afrique bi nga xam ne nii yàlla dogal na ñu dénk ñu ko mu doon loo xam ne nii euh, dañ koo jiital loon suñ Pape Ciss mu yor ko yàlla dogal ñu dem ba yàlla dogal Touba ci kanam ni muy doxee mu dem yor ko na fa at def ci lam ci war a def lépp yàlla dogal mbooloo mi ànd ci ndigalal sin aboo bu suñu dénk ma ko ma nekk ci ah, Afrique boobu nag yàlla dogal na wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def ay liggéey yu am solo yoo xam ne nii eh, eh, lu mel ni ay programme yoo xam ne nii seen baykat nii moo ko jiite ci eh, discipline ak programme ñu fi def ay café diaspora yoo xam ne nii ñu ngi koy organiser bi ñu tàmbalee liggéey bi ba léegi def nañ ko dëkk bu mel ni Guinée Bissau def nañ ko dëkk bu mel ni Burkina Faso am na yeneen dëkk yoo xam ne ni yàlla dogal na tamit ñi ngi koy xalaat pour def ko fa waaye màggal gi dafa ñëw mu xaw a xat xam naa ne danañ ko jàpp ba bépp coordonnateur bu nekk ci réew te yàlla dogal nga bëgg ñu defal la café yooyu ñu organiser ko fa la muy jariñ mooy dañuy fexe ba mbooleem ñi nga xam ne ni ñoo liggéey bi ñëpp man faa ñëwandoo dugg ci groupe di jëmmal wàllu commission Afrique gi nga xam ne ni yàlla dogal na euh, des koo jiite diggante daaw ba ñu joxuñu ko mooy Afrique wax dëgg yàlla ànd nañoo communication ak massification yaatal ba Afrique actuellement ñu ngi ci ñaar fukki réew ak juróom benn wala juróom ñaar réew yooyu nag bu ci nekk yàlla dogal na fexe nan ba euh, nekk fa di xam la fay xew ak lan fay doxal di ànd ak ñoom liggéey bi di def waxtaan yu am solo ci eh, Afrique bi ak commission bi nga xam ne nii mbooleem coordinateur wala coordinatrice bu nekk Afrique yaa ngi fa ñu ubbil ko panel di ci waxtaanee lépp loo xam ne nii dafa aju lu aju ci eh, Afrique ba xalaatoon nag def ay café yoo xam ne nii café diaspora lañ koy tuddee di ko amal di ci par dimanche fukki fan ak juróom yu nekk ñu amal ko ba jot nañoo def ay réew yu fasantikoo lu ci mel ni Burkina Faso ak Guinée Bissau am na yeneen réew yu taxaw soxla ko pour ñu def ko fa. la jariñ nag mooy ña nga xam ne ni ña ngi ca groupe ba te yàlla dogal na amul accès ci yeneen groupe yi Touba ci kanam yi wala yeneen commission yi dañuy fexe ba commission yi nga xam ne nii ñoo nekk Sénégal kilifa yi jiite ko. lu mel ni président Abdou Fattah wala yeneen kilifa yoo xam ne nii dañuy yor ay liggéey yu am solo ñu dugal leen ca émission bi ñu tàmbali ko 21h wala 22h ñu dem ba minuit lépp loo xam ne nii waa réew ma wala coordonnateur bëgg na koo xam ñu xamal leen ko kon ña ngi ci loola. beneen bi tamit ñi ngi waxtaan ak mbooleem ñi nga xam ne nii dañuy nekk ay euh, représentant xalifa général yi nga xam ne nii dañuy nekk ci àdduna bi rawatina Afrique ak ñi nga xam ne nii. dañuy nekk ci daayira maam maam jaara yi yor liggéey ba ñu bëgg waxtaan ak ñoom fexe ba coordinateur yi am ak ñoom rapport ñu mën a waxtaan pour wéyal liggéeyu Touba ci kanam bi beneen bi tamit ñu am ay jafe-jafe jafe-jafe yi mooy coordinateur yëpp ak coordinatrices yi dañuy soxla ay jumtukaay jumtukaay bi la ci jiitu mooy am ay sile am ay banderole am ay flyers mu doon jumtukaay yoo xam ne nii sàkko nan ko ci Touba ci kanam ñu fexe ba man koo am ba nga xam ne nii seen liggéey dana jàppandi ak ci estandi e, e, e, parce que liggéey bi Touba ci kanam foo xam ne nii yàlla dogal na dañ fay def benn xew-xewu diine rek ci réew yi wala réew mu nekk dañuy bëgg di fa dem te bu ñu demee ñu man faa am jëmmal liggéey bi te wax dëgg yàlla ñi nga xam ne nii ñoom lañ bokk liggéey suñ Touba bi fépp foo xam ni Touba ci kanam dem na fa bëgg faa liggéey dañ ñu yaatal kon ñi ngi sàkku ci relation ci ci ci ci ci ndigalal wu relation extérieure eh, di sàkku ci waa Touba ci kanam ak comité directeur ñu fexe ba réew yi nga xam ne nii ñoo nekk Afrique lépp loo xam ne nii dañ koo soxla woon ci lu jëm ci wàllu flyers wala banderole wala eh, gilet yi nga xam ne nii ay jumtukaay ñu war koo liggéey de wax dëgg yàlla ñu jàppale ñu ci mu doon jàmbat loo xam ne nii ñëpp ànd nañ di ko jàmbat te soxla nañ ko kon kilifa yi nañ ko bàyyi xel te ñu fexe ba mbooleem réew yi nga xam ne nii am nañ ko alhamdulilah ñi nga xam ne nii amagun ñu fexe leen ko wutal parce que yéen jàppagun daanaka Gabon rek laa gisagun ñu yóbbul leen vingt vingt gilet waaye réew yi ci des yëpp ñii a ngi laaj quarante ñii di laaj vingt te wax dëgg yàlla benn réew amagut te loo xam Euh, ci Afrique laay wax Afrique benn Gabon rek moo ci amagun yeneen réew yi ci am yëpp waa réew ma ñoo takkatoo jaayante wut seeni barab seeni mbir yu ñuy liggéeye kon euh, euh, soxla nan yooyu beneen bi tamit ñu soxla ay communi communication ndax communication bi mënut a ñàkk te Touba ci kanam lépp dafa nekk ci virtuel ginnaaw virtuel la ne nag te bëgg nañ koo génne war nañoo fexe ñi nga xam ne nii même bu nekkul ci panel yi tamit mën a xam lan mooy liggéeyu Touba ci kanam te loolu li koy def mooy ñu fexe ba coordinateur bu nekk ak coordinatrice bu nekk ñu mën leen a defal benn scot boo xam ne nii dañ koy wax buñ ko waxee ku ci nekk boo ko déggee ak foo mën di nekk ñu xam ne réew sàngamkat diw moo fa nekk moo fa représenté Touba ci kanam dana am solo ci liggéey bi ndax day motiver ki nga xam ne nii day liggéey kon daal bu fekkee ne leen bëgg a tënk yeneen dinañ fi ñëw jàpp naa ne loolu moo ëpp ci solo ci li nga xam ne nii moom la ñuy euh, da da euh, damaan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 maskani tuuba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat